de Dental TV comme niñ ko doon defee rek nee naa leen yéen ci seen émission li nga xamante ne moom moo di leket gi ma dénkoon ko ki nga xamante moom moo di baaba bu wal fajiri gis ngeen demoon naa këram jëli ko ñu ñëw nag dafa tàng sama gars yi rek période tàngoor lañ nekk loolu moom moo tax ñu changé li nga xamante ne moom moo di habillement rek baaba ci loo nekk waaw maa ngi lay nam awa sama xarit eh, sama mhm. jigéen mhm. di la wax nag sa tournée bi métti na torop torop <laughs> Musuhnya pare musuñoo gisoo tàngoor bi loolu moom moo tax ñu changé yére nii tax ñu changé yére nii waaye di la jaajëfal di nuyu mbokk internet bu Dental TV yëpp mhm. eh, di la juar waaye man xam nga ni coono bi daf may neex parce que mhm, coono mhm. bi wax dëgg yàlla coono coono bànneex na lépp lu ci waaye def rek yàlla moo lay fay waaw nee naa lu mu lëndëm lëndëm dañuy xuus jaar waaw gis nga parce que leket gi ba ma la ko dénkee da nga ne ma dénk nga ko dox kat waaw dénk nga ko dox ak maa mën a dox fu ne laay <laughs> dugg mais daa mel marché Kër Massar bi lañ jëm nga ne da ngay seeti sa benn yaay kooku kum doon. waaw kooku nag euh, mooy mère bëgg fàllu. Mm-hmm. jigéen ju mën góor. Mm-hmm. jeeg bi nga xam ne tubaarkàlla macha allah fa mu toog guy la ay reenam ko fa téye. Mm-hmm. xam nga réew mi dafa am ñoo xam ne il faut ñu leen di seeti ay jigéen ñu baax lañ surtout jigéen. Euh, jëmm jooju foofu lañ jëm nii dafa nekk nit ku baax. incha allah nekk jàmbaar. nekk koo xam ne man dama ko naw. Euh, sama xamante maak moom yaa ngi ma koy laaj léegi mhm. euh, bëgg faa lu dama ko xam muy def lu baax mhm. parce que man ni ma gisee nii mhm. euh, awa dara ñoruma dëgg la man ku yor làmmiñ garmi di ko wax sama nit nga ku yor bëti garmi di ko wax man sama xarit nga dëgg la parce que réew mi fu mu toll dañoo war a waxante lu baax di def lu baax dagg la ma gis ko ñu xamante maak moom ma fekk ko muy jàppale benn femme. Mhm. jox ko xaalis. Mhm. ne ko demal nga dem jaayu omo. Mhm. année boobu maa ngi doon départ di dem Maroc direction bu Casablanca. Euh, ma dem Maroc def fa un an ñibbisiwaat gis ko ñuy waxtaan maa ngi moom ma ne jigéen boobu ñu toogaloon te nga joxoon ko mu dem jaayu omo bi mu ne kaañ dem ma la ko kooku tey ay géej yu baari lay jaay du wàccee ay conteneur. ndeysaan rawan kon xam nga ni kooku moom jàppale nit. Euh, loolu moo tax tamit ma bëgg ñu dem foofu. ok kon mère bëgg Fallou ñu ngi ñëw dégg nga. <laughs> amis téléspectateurs de Dental TV nee naa la yéen ki seen émission boobu ñuy wax leket gi ma jëloon sama leket nag daal di koy dénk baaba mais nag dañoo dugg ci ki nga xamante ne moom moo di jàmbaari Serigne Saliou ji di Basirou Ka nee naa la moom moo jiite li nga xamante ne moom moo di mouvement BAS ñu daal ñuy dénk rek benn mission muy un talibé un sandwich baaba ñëw nga ci ku jar a ñëw nag kii ñu toog ak moom mooy kan. ñoom mhm. ñëpp tournée boo xam ne mën naa ne compliqué na parce que ku nekk bëgg nañ laa seet képp kuy autorité wala nga nekk porteur de voix mhm. bëgg nañ dugg sa kër mhm. waaw tey nag ki seet si sama xarit la euh, sama papa Bassirou Ka jàmbaar chef projet sama xarit waaw euh, moom da cee bokk mënoon euh, na ni moom moom moom Denta TV mais dama ko oo rek mu ma yow loo bëgg ci man day yokk dëgg la waaw moom moom Dental TV. Mhm. mais yaakaar naa ni ginnaaw la féetee. jël lépp teg ko ci xale yi. Mhm. Mhm. Mhm. loolu moo waral ñu defal ko li nga xamante ne moom moo di surprise ndax dañ ko bett rek nee naa la nag booy dugg ci kër il faut nga daal di xool ki nga xamante ne moom moo di borom kër gi ndax buñ ne BAS da wax jëwriñ Basirou Ka ndax moom mooy la coordonnateur national nekkit président li nga xamante ne moom moo di eh, mouvement BAS bi nga xamante ne moom moo ko jiite bas nuyu nañ Uh, may leen di fay soxna awo. waaw ma ngi sant bu baax Serigne saliw mhm. waaw tay bekk lol ci sen ñew wa equipe Dental TV. Mhm. Eh, yow Awa ak eh, sama Dom di sama xarit. Mhm. Baba bu wal fajiri. waaw ak Amama ak mohammed ak eh, mohammed di sama Rak di sen chauffeur. di nuy ñep ñi ngeen andal di bekk lol ci fekk bi ngeen ma fekk fi ci kër gi waaw ok bas euh, naka nga gisee li nga xamantene mom modi sen di slogan bi ngeen genn un talibé un chandis bi nga xamantene wa mouvement BAS ñu ngi koy wajal le 12 waaw mbekté la ci am ndax eh, mbir mom boko yëkëté yëkkatee ndeysaan muy lo xamné ne eh, am ño xamé ne suñ ko déggé ci déggin mën nañ ko xép ci manam li ñu naan un talibé un chandis waye jëf mom suko borom soko xébé rek suñu borom nanguko waye yene jëf mo am solo eh, suñu doole fofu la toll ak ñu ciy àndal yëpp moo tax ñu jëfee loolu waaye euh, sunu borom moom xam na ne li ñu bëgg a jëf lu am solo la ndax dañ koy tàmbalee ci taalibe euh, taalibe nag mooy xale te kuy euh, def dara rek def ko ci xale ndax xale mooy mujjee réew ëllëg ak lu mu mënta demee rek lu lu am solo la yéen it sonn ngeen ci torop kon lépp loo leen ci def rek Eh, muy pay bi nga xam sunu borom moo leen moo ñu ko dencal yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp ñaan yàlla yàlla may ñu fekkee kook jàmm te maa ngi ci woo bépp autorité bépp ku mont doon koo xam ne eh, taalibe ñor na la rek ndongal daara ñor na la waaw mouvement BAS woo nañ la ci bu baax baax ok Bass ñu gis na li nga xamante ne waa mouvement BAS pourquoi ngeen jug rek ne ci social ngeen di dox parce que le 13 bi passé demoon ngeen fa li nga xamante ne moom moo di ca pépinière bu Mbour daal di yóbbul li nga xamante ne moom moo di orphelin yi ay doo le 12 bi ngeen ne taalibe yi ngeen ko jagleel pourquoi mouvement BAS deful ñeneen mouvement yi lu ñuy def ngeen jug rek ne ci social la ñuy dox. waaw xam nga BAS moom euh, liir buy soog a judd la damay wax saa su ne ñi ko jot dégg maanaam ba mu juddoo yàggul. ngénte guñ ko tan da ñew tan social tan jàppalante tan dimbalante ndax ki sos mouvement bi muy man ak ñima ko andé e man loolu la gëm ndax taalibeb Serigne Béthio laa e Serigne beccio yar ñu tagat ñu xam ñu xam lan moy dimbali nit ak njëriñ bi ci nek tay ñu waron tabax ay daara di jox xale ñuy lek di len jox ñuy naan di fay ñi leen di janggal, lolo ñu waron xëy na suñu doole yeggu fa buñ ci jee mouvement bi nag euh, mouvement bi euh, apolitique la woo nañ ci ñëpp dañ koy def social jàpp jiite ko nag ci xale yi surtout moo tax ñu dem mbuur war a def on taali bi suñ fa jógee am na yeneen sumb yu ñu sumb euh, loolu moo tax ñu tànn lu mel noonu di ko def waaye jëmale ko ci xale yi ndax xale mooy nekk ëllëg lu nekk tey mën nañ wax ne xale yi ñoom ci la am imam mën nañ ci am tey ëllëg muy ministre wala président ci xale yooyu la mën a judd kon loolu moo tax ñu tànn euh, di def social surtout jëmale ko ci xale yi te yëmale wuñ ko suñu bopp dañu ubbi bunt yëpp yaatal ko pour ñëpp mën ci jëf ndax lu baax ndeysaan boo koy boo koy def dañ koy ubbi képp koo xamante ne fekk na la ci ak moom yem yéene waaw ndax tey su ma jëndoon benn xar euh, yéene ci sarax euh, keneen jënd xar yéene ci rendi xar bi berndeel ci ay doomam man xar bi sarax rek laa ko yéene ab marabu walla dara nuñ koy waxee moo ma ko digal waaye paaka bi koy bi rendi ñaari xar yi mën na nekk benn paaka waaye paaka bu nekk xar bu mu rendi nekkul ne jëf yi ñoo bokk waaw bee man dama see yéene pour sant ci yàlla ci xar bi kon su ma suñ ma ciy fay buñ ma fekkee may rendi xar bi ñu ñu jël 100 francs jox ma ko ñu si cant gi laa bokk kon jëf boobu buñ ma koy fay maak ñëpp koy bokk waaye keneen ki nga xam dafa yéene pour njabootam kooku pour njëb eh, bégal njabootam yépp la kon benn paaka bi mooy rendi ñaari xar yi waaye jëfiñu bokkul kon loolu mooy social ah, mooy lépp BAS ci la woote mooy booloo ànd sukkaliku comme ni koy waxee loolu mooy BAS nga ciy sànni. kër yi ñu jot a dem yëpp dégg benn message ba Bassirou mm-hmm, mm-hmm. kon mm-hmm. ma bëgg moom tant maa tax tey ci émission bi mu jël nga xam ne def nañ ko ci mu tontu ñëpp ñi nga xam ne ni ku euh, waaw euh, Baba comme ni nga ko waxee Euh, damay sant ñëpp nag waaw dalee ko ci njiitu réew mi nga xam ne mooy président Macky Sall jaaree ko ci soxnam sunu yaay Marème Faye Sall jaaree ko ci autorités yi nga xamante ne ñoo bokk ci commune Tivaouane Peulh Niague mooy autorités yi fi nekk ci bopp bi ci maire bi ak euh, sama nijaay di El Hadj Dia di Ousso Dia di sama nijaay di sama lépp nga xam ne lépp lu ma mën yàlla ak moom la euh, di ko ci sant di sant mbooloo ñi nga xamante ni ñoo fi nekk mooy ñoom Mamadou Ba ñoom ak juin maire Boubacar ak ñi nekk ci gox bi Tivaouane Peulh yépp nuyu naa leen waaye tamit gërëm ñi nga xamante ne nekkuñu ci commune Tivaouane Peulh ñàgg ñu ngi ci zone Dakar bi mooy ministre yi fa nekk ak euh, ñi nga xamante ne ay homme de culture lañu ay artistes lañu euh, ñoom it fu ku wax sociale wax leen noonu la ñuy wooyee tamit euh, sunu xarit yi nga xamante ne baaba xam nga ma xam leen mooy sunu mbokk yi nga xamante ne saan ay Gambien lañu nekk ci États-Unis Amérique eh, di di di bàyyi xel mouvement BAS eh, di ci dox di ci wax di ko bëggee saa su ne ñuy woote ay téléphone di laajte di xool ci lu ñu nekk kon baaba ñooñu yëpp à travers Dental TV maa ngi nuyu waa eh, États-Unis yëpp di nuyu waa France waa Espagne waa waa waa waa ñu koy waxee waa euh, Soudan ak euh, fépp foo xam ne taal BAS mu ngi fa yaatu na su ma limee day am foo xam ne dama koy bay waa Gambie waa noonu la ñu waxee waa Mali wax waa Sénégal yëpp bàyyiwuñu kenn waa Touba waa dakaar waa kawlak Thiès Louga euh, Saint-Louis yaatu na BAS foo dem tey ndeysaan am na kenn ku fa représenté mouvement bi kon ñu ngi woo ñëpp te di leen sant bu baax gis nañu eh, sunu première action yi njëkk a def ñoom gis nañu niñ ci niñ ci doxee di sant ñëpp di leen gërëm di gërëm sama jigéen ñi ma àndal ci mouvement BAS yi mooy tey lépp lu ma moon yàlla ak ñoom la waaw su ma limee rek day am ku may fàtte waaye dinaa ko teg ci loxol sayer sama rakk ak sama loxol rakk Awa Sow ak sama doom baaba ngeen nuyul ma ñëpp waaw ngeen nuyu ma waa BAS yëpp e, santal leen ma leen bu baax ndax tey li def ngeen ci liggéey bu am solo tey ñun ñëpp ñu ngi toog suñu kër yi di naan ataay toog di waxtaan yéen a ngi si naaj bi di dox pour liy doxal mouvement BAS e. yéen la ndax mouvement boobu suñ ko créé pour xale yi la pour jeunes yi la pour jigéen yi la pour ñëpp gis ci seen bopp yal na yàlla kàttanal ñu defal ñu jàmm ci barkeb Serigne Saliou may ñaan Serigne Béthio yërmandem yàlla na gën a sotteeku ci ñun gën a sotteeku ci àdduna bi noonu lay nuyoo xalif général des Mourides sëñ Muntaxa Mbàkke ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te gën a wér di sant tamit euh, di di di ñaanal euh, Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée yàlla na yàlla yokk ay ndamam di ñaanal sama Serigne Seydina Saliou Thioune mu sëñ Béthio yàlla saxal ko fi te yokk ko bu baax a baax a baax noonu laa koy ñaanee xalif général di tiijaan waaw ndax barki démb rek lañ fa jóge ndeysaan Eh, di nuyu sama xarit sama wolor sëñ ci di ahmed si di dom khalif general di tidiane ak mam abdou si eh, bu njool fouta bu setu mam abdul aziz dabakh di samay wolore di sumay xarit di sant ñep di nuyu non tamit wa bepp purux bo xamne bir mu ngi fi bir senegal eh, nek kër gu bax rek nuyu nañ bayiwu ñu kenn di sant ñep di gërëm ñep di ñaan yalla yalla def jamm ok ami téléspectateur de Dental TV dañ koy jaajafal bu baax a baax kooku moo nekkoon ki nga xamante ne moom moo di jëwrin Basirou Ka nekk président mouvement BAS bi nga xamante ne dañoo woote le 12 juillet un talibé un sandwich sama leket nag ma daal di koy dénk ki nga xamante ne moom moo di baaba borom Walfadjri rek ñu ne dañuy daal di ñëw ci ki nga xamante ne moom moo waral coow li di jëwrin Basirou Ka daal di koy defal surprise rek dañuy daal di daagu ndànk dem xool ñeneen rek ba xam lan la ñuy def ci leket gi pour talibé ya ah, dëgg du neex Yeah. Baba kii ñu toog ak kum doon. waa kii ñu toogal jëmm ji ñu toogal euh, mun naa ne référence la parce que yaakaar naa mouvement BAS euh, mu ngi fay liggéey liggéey bu am solo xam nga tournée bi li tax mu neex mooy képp koo xam ne rek dugg nañ sa kër xamal ni doo ba léppuy de. Mhm. Euh, dara nga ñi certifié ki nga xam ne nag jàmbaar la liggéey dong moo ko ñor muy soxna Awa mhm. tey nag boo ma bu ñu ñëwee fii dénk ko micro mhm. loolu dama koy rafetlu parce que xam nga li ma doon wax sànq rek. Euh, émission bi tey képp ko leen ci seetaan rek xam xam leen ni jàmbaar nga parce que tey euh, jëluñu benn benn benn benn nit koo xam ne ni euh, du fi dara comprendre nga. Mm. ñu lay jël di la dugal ci émission bi. ñuy jël ñëpp tey yaakaar naa yéen a ngi def liggéey bu am solo ci Sénégal. Mm-hmm. social nag buñ ko waxee. yaakaar naa mouvement BAS dañ cee jiito mhm. kii nag euh, moom mooy Soxna Awa. Mhm. Soxna Awa nuyu naa la. fay naa la aw sax. yaa ngi ci jàmm maa ngi ci waaw ñu tey li nga xamante moom moo di waa mouvement mhm. BAS daal ci waxtaan ak Bass. waaw tout d'abord damay wax bisimilah maa ngi nuyu àdduna. maa ngi nuyu waa Sénégal maa ngi nuyu waa mouvement BAS. pour le développement national et international. nationale bala ñoo yegsi si mouvement bi dañoo yàgg ànd ak euh, Basirou Ka le coordonnateur di liggéey démb avant mouvement bi di ñëw mu yàgg dox si social yàgg dox si développement ñu di ko ci yàgg gunge tey bu xëyee ñu ubbi mouvement muy dox ci social ak développement kon ñun saa fu ñu toog rek dañuy jéem a trouver ay idée yoo xamante ne nii day jëmale mouvement bi kanam pour jàppale Basirou Ka ndax daf ñoo gunge démb tey soog a ñëw donc bu ubbee mouvement di dox ci social di dox développement donc ñun war nañoo mën toog di xalaat ay idées yi nga xamante ne nii day jëmale mouvement bi kanam looloo tax ñu toogoon xalaat ne dañuy dem ci pouponnière bu Mbour ci xale ya pour yóbbu leen ay don ñu jugee ci lool ne pourquoi pas ñu dem ci euh, taalibe yi parce que taalibe yi ku ne taalibe xam ne bu xëyee euh, jël na yoon di wuti lu mu lekk di wuti lu mu yóbbul euh, sëriñam donc ñu xalaat ne pourquoi pas duñ dem ci taalibe yi mm-hmm. noonu la ñu affaire bi dikkee. Mm-hmm. xëy na dégg-déggin bi boo ne un taalibe un chanduise rek dañuy jàpp na ci chanduise la mais seen mëbët mooy da ngeen di dépasser li nga xamante ne moom moo di chanduise. waa comme Awa Sow ni ngeen ko defee nii rek parce que da ngeen a gàddu seen leket nga ànd ak baaba ngeen di wër bonne volonté yi ak ñi nga xamante ne nii lii nii ñun ngeen di dimbale. parce que ñun dañoo bëgg a toog rek di def si lu baax di ci wut fayu yàlla ak di liggéeyal suñu réew kon yéen bu ngeen ñëwee seet suñu ñun ngeen di jàppale ku ñëw nag ne la dimbaleel taalibe kooku yow lay jàppale jàppale woo ko donc mu nekk loo xamante ne nii dañ ne un taalibe en Chanduize loolu slogan bi la mais suñu moyen bu ñu ko mayee dañuy weesu lu lu lu ëpp Chanduize parce que taalibe yi soxla nañ ay dàll taalibe yi soxla nañ ay saabu soxla nañ ay yére soxla nañ leneen ak leneen dañuy dépasser sandwich mais sandwich bi mooy slogan bi mais ami téléspectateur de Dental TV yéen a ci seen émission bi ñuy wax këll gi maanaam sama leket gis ngeen ne ki nga xamante ne moom moo di baaba bu Walfadjri laa ko dénk ñu def benn slogan bi nga xamante ne waa mouvement BAS ñoom ñoo ko woote le 12 juillet un taalibe un sandwich ma daal di si doon jëli ki nga xamante ne moom moo di baaba mu wër ay nitam ay am di jàmmam rek ñu daal di xool lan la ñuy jàppale li nga xamante ne moom moo di taalibe yi ñu ngi fii ci marché Kër Massar bi nag fekk fi jigéen ju man góor baaba ki ñu toog ak kum doon toogal nak boo gisee li tax ma njëkkee bi léegi-léegi maa ngi toog ci oto bi maa ngi jigen la ci Modou Fallou la ñuy dem kii mën naa ni jigéen ji moom góor la yaakaar naa Kër Massar tey ñëpp xam nañ Modou Fallou fa mu egg sax yaakaar naa jëmmam egg fa ndax mën naa ni Kër Massar foo tourné xam nañ ki nga xam ne ni moom Modou Fallou jëmm ji nag tax ma ci awa dafa nekk nekk xam allah dong ko ñor bëggul koy yaafus waaw je me rappelle benn année bi xam dama ko fekk ñu jàpp benn femme boo xam ne nii euh, femme bi moyen am demeewul woon noonu. Mhm. mu jël omo jël saabu jox ko mu ne na ko dem jaayi. Mhm. mu koy verser. tey kooku bañ demee ba gis ko tey mu ngi yor ay place yi place yi place mhm. yaakaar naa jàmbaar la kon yaakaar naa kii référence la kon kii war nañ koo delloo njukkal mu nekk rek sama xarit sama yaay bëgg fàll asalaamaaleykum wa rahmatulah ak sëñ Fallou sama doom kontaan naa si ñëw bi nga ñëw fii seet si ma mm-hmm. ànd ak uh, sama doom ji di Baba Jaamu wal Fajiri mm-hmm. doomu Aïda Patara mm-hmm. mu nekk tamit xale bu am jom xale bu am personnalité ma a dimbali ndeyam nag man loolu moo tax ma naw ko ndax li muy jàppale yaayam moo tax man ma bëgg ko baaba amul yére bu baax baaba amul néeg bu baax ndax jàppale yaayam ak yaakam sa Sëriñ Fallu Mbakke ndaxte li police si bañ maa fekkee te damaa fekk lépp si moom. kontaan naa. si ñëw fii. Mhm. ngeen dalal ma si jàmm ak si salaam. ok maman naka nga gisee li nga xamante ne waa mouvement BAS bi nga xamante ne coordonnateur bi Jawrin Basirou Ka moom moo woote benn slogan un talibé un chantier ñu gis ne coronavirus dafa laal ñëpp talibé yi seen yalwaan dematul noonu mu ne dafay collecter ay don daal di tok jënd ay ravitaillement daal di ko yobul ñi nga xamantene ñom ñoo di ndongo daara yi kon donc naka nga gisee li nga xamantene ki di Jawrin Basirou kam mi ngi koy def geste bu noble bobu tayaw nga nek femme sociale ah xana contane ci mom rek mhm. ndax man képp kuy def social mhm. damay bëgg yow dama lay bëgg mhm. ndax man dama gëm social ci nga sama jigeen ñi toog nii daan doole rek la def te fi yépp marché bi dafa dugg ne bëgg fallu toujours social lay doxee te man moom laa xam. moom na ma sama yaay nàmpatale. Bassirou Ka nag ma nekk ko fonk naa ko lool bëgg naa ko. parce mhm. que sëñ Fallou Mbacké ah ndaxte euh, Covid 19 bi. Mhm. ku ne amul rek. defe naa ni war ngaa làkkatu baax xoolaat sa bopp. Mhm. xatt dafa am. ñu war a jël mesure barrière yi. Bassirou Ka comme ni mu def nii. ngeen koy mhm. un talibé, un chandise. Mhm. non parce que ce man dama gëm dama gëm yi. damay des taalibe. Mhm. man je Fallou. yaa may dégg ma ñëw nag fii. député ñëw dëkk si fii. ñoo fekk si euh, euh, monsieur le maire honorable député. mu ku baax. bi ak ju présidente des femmes. de Kër Massar. wëlbatiku di ànd ak sama doom Moustapha Ly muy politique man may def développement di di def social di def politique. ànd si nag Basirou Ka li ko bëgg fàllu nee na tàllal na la loxoom. incha allah te man mii nag. nekk naa seen fan si nekk naa seen yaay de. dëgg la nekk naa seen yaay. dëgg la maman nekk fan si club. Mhm. yow awa. pël bu rafet waaw pël <laughs> rafet bëgg naa la lool sopp billaay maa la raw yaay booy <laughs> ndax nag képp kuy dox social rek nit ko baax dëgg la képp kuy dox social ndax nit ko baax mm-hmm. waaw ndax dimbali sa mbokkum jullit si yenn situation yi mm-hmm. dañu ko vivre mm-hmm. barkaal allah dara gënu ko si àdduna ma del siwaat si li kii waxoon sànq li baaba waxoon sànq baaba newoon na sànq ñëw na fekkee may jël jigéen di ko jox omo ne ko tax jël takkee nii leen def nii di jaay day jël li nga tàngaleel fii di ko jaay fii. rawal marché bi. Mhm. lii si ngeen ko publier ci toog man saa su nekk rek xam nga lu may nuyoo lu may sant def naan ma jërëjëf Serigne Fallou may am yëg-yëg goo xam ne rek. am naa mhm. avancement. dëgg la waaw. ndax social dimbali doomu aadama dafa baax. Mhm. Bassirou Ka li ma dégg si moom si muy dimbali ay nit bari na. dëgg la macha allah. tabaarkàlla. mi ngi dimbali si mhm. mhm. mhm. treize bi passé rek la dem fële nga xamante ne moom moo di Criqui de Cœur bi nga xam ne pépinière bu Mbour euh, vivre ensemble doon nañ ko def ñu yóbbu fa lu baree bari ay ravitaillement dem yóbbul leen ko la treize bi passé le douze juillet nag mu ne taalibe ñoom ñoo ko moom. ndeysaan wala loolu pépinière. dafa sensible. ndax majeure partie. xale yu nu sànni moo fa ëpp. dëgg la dana am naam ay dénkaane. mais ñu nu sànni. les orphelins. amuñu ndey amuñu bàyyi. dëgg la ñooñu leen yore. Bassirou Ka bu jëlee loxoom dugal ko fa. loolu mooy lan. dëgg la ndam rek lay am. barke Sëriñ Fallou Mbacké. képp kuy dimbali waatee. soxna Awa. ndabare nga embarqué El Hadj Fallou. dëgg la maman waaw. bu mhm. sa borom poroxaan. Mhm, mhm. pël bu rafet. li ngay dox nii la de. macha allah macha daam loo ciy sànni ah. li ma ciy sànni rek mooy euh, li mu wax. tey Awa yaakaar naa émission bi euh, wër na quoi. parce que départ bi. nekkoon na loo xam ne ñëpp ñoo ko doon xaar. dëgg la tey yaakaar naa képp ku ñu référence nga. effectivement. Euh, li ma marqué moo du tur bu mu am. Mhm. wala euh, du nit ñi liñ ko top ko nekk bëgg faal bëgg faal. ñi mi jappalé nit ñi ah. Mhm. parce que réew mi nag euh, tubaarkàlla macha allah ku nekk soxla ko la jappalé dëgg la awa nit ku mëna amul ku yalla dimbal rek a effectivement mhm, muy jappalé jigéen ñi di leen jappalé ku mu gis rek nga ñëw ci mom bu la jooytoo munoon na la may xaar ne la demal dedet da lay jox xaar ne la demal liggéey da defal nii sa bop jappalé sa bop te yaakaar na ñi jàppoon ci moom ñëpp tay doon nañu li nga xamné ni euh, dara la mu nekk nag sama yaay nekk sama xarit balaa ñoo dem ci Aïda Patra di seeti ñoom kuram ak ñoom ñëpp. Mhm. ci moom mii lay njëkkee ba pare. parce que mhm. dafa nekk jigéen ju mën góor. Mhm. nekk jàmbaar joo xam ne nitu barkaala macha allah. tey micro bi suñ ko ko di kontaan ci moom nag bu baax a baax sama yaay ji. ok maman <laughs> kon ñu jug rek dem xooli keneen baaba. waaw di gërëm rek na nga sama honorable député maire. dañ koy wax Moustapha Mbeng eh. mhm. xalé bu baax bi nga xam dafa taxaw eh, keur massa gep fu mu nek ni tabarakallah sunu lamp yaangi na ne leer nañ tali yaangi ni auto yu fu le neex duggu ndox mi da daan ta fu nek groupement de femmes yi barki Dembo ndjay la def ay financement jox ko jigen yi mhm. xam nga ni ki tamit machallah tabarakallah mhm. ñuy ñaan yàlla nag si kàttanu yàlla ak yonent bi ak sëñ Fallou Mbacké mhm. fas yéene koo falaat rek mu nekk suñu deuxième mandat rek mhm. ànd ak Moustapha Mbengue si si kanam mhm. ak yàlla ak yonent bi ak sëñ ñu toogaat ba nu falaat suñu monsieur le maire deuxième mandat bëgg nga ñëwaat ba interview mu fi si barke sëñ Fallou macha ma macha allah ku baax nga ku baax nga takk naa la nag sama doomu bopp sama doomu xol incha allah ndax mooy sama taaw <laughs> muy muy yow ngay jigéen dafa mm-hmm. neex. macha allah dafa neex macha allah. macha si kaw si kanam rek. amiin yaa rabbi te lii nga def nii tey. Mm-hmm. dama koy fas yéene def anniversaire. incha allah bu déwénee jàmm ak salaam. fii laa koy tànn si buntu bi si buntu marché bi. waaw déggal lii. <laughs> bis bi parce que Serigne mm-hmm. waaw waaw. macha ah, ndax man taalibi def naa ñor. te Basirou Kaw tamit kenn du moom. waaw taalibi Serigne Saliou waaw waaw taalibi Serigne Saliou boobu. jërëjëf kontaan naa si ok amaama dañ koy jaajëfal bu baax a baax. Euh, dëgg la mhm. xale yu baax yooyu. Mhm. macha allah yal na yàlla kat dolli. amiin yaa rabbi def leen nag ay mag. Mhm. waaw yu am ñam. amiin amiin barke Alaaji Fallu Mbàkke. amiin waaw. yàlla na leen seen waajur jariñoo amiin yaa rabbi tamit lii dafa neex lii lépp si liggéey bi la ñii nooy ñii nooy feeñ mais yéen ñiy filmé tamit macha allah dëgg la kenn du allah jërëjëf jëf kontaan naa si yéen waaw ok